moom Baye Cheikh Khady ak sëriñ Habibou si euh, xam naa li ëpp sax day jëm ci sëriñ Serigne Cheikh Abdou Mbacké moom Baye Cheikh Khady ndax xañ na euh, nit booy wax ci moom waaw nga jëm koo wutal nattango wutal koo xamante ni ñoo bokk position ndax ñoom ñaar ñii dafa noo bokk bari lu nu askanoo dafa am benn picc boo xam ne dafa taawoon ci kaw te picc yi sax xetoowun woon booba euh, benn waay wax ne picc yi da am na lun bokk ndax ñoom ñaar xeetowun xam nga ràmmutu ak pitax mu mag xam nga xeetowun mu ne am na lu leen boole daal ndax neenu tooge naal am na lu leen boole mu dàq leen ñu gis ñoom ñëpp ñuy soox mu ne ah kon lii moo leen boole waaye sëñ si Abdou ak ki nga xam ne moo di euh, sëriñ Habib si jàpp naa ku nekk xam na ne ñoo bokk seen waajur ya seen waajur yi tamit ku nekk gis leen seen taxawaay ci diine ak ci àdd ci réew mi ba ni ñu fi jógee ñoom ñu wuutu leen jël relevé ba di ko wóyal balaa booba ñu fàttali leen ne candidat bi nga xam ne moom la président Macky Sall tànn muy Amadou Ba ku nekk xam na ne ku daan xeex troisième mandat ku wooteel Amadou Ba wala nga parrainel ko xamal ne président Macky Sall nga ko defal mooy troisième mandat te li ci gën a yéeme ñu rawatina fii ci diwaanu Touba mooy gis ngeen ñaari yoon amadu Ba fal na ko ministre benn chef de service waxuma la ab ministre chef de service jëlu ko fii ci Touba dëkk bi sax bañ na ko ba xamu ko sax xamu ko sax comme nag continuité lay def continuité amadu Ba moom boobu ñëpp ñu àndandoo waccoo ko gall ko ni ñuy gàlle am soow ni liir di gàlle am soow ñu gàlle ko candidat Amadou Ba. mooy duñ ko pérénaasal dun ko wooteel lépp lu luy tax du jàll ñu fexe ba def ko te loolu lu yomba yomb la lu yomb la lu yomb la ndax Amadou moom yomb naa xeex ak koo xamante nii doo ko gis doo ko dégg xamu ko sax far xamul la xamoo ko kooku jàpp naa ne <coughs> yomb naa kii ak ñeneen ñi nurook moom ku ci mel ni Abdoulaye Jonn bun jonn bun jonn xam leen ne bu leen wóor wóor ne président ak Sall lay jàppale président ak Sall moom moom lay jàppale Amadou Ba lay dëgëral ni Pape Diop defoon dem dëgër ko noonu rek la bëgg a def mbokk yi euh, sëñ Cheikh Abdou bu ñuy wax patriote patriote maanaam nit ku bëgg réewam moom moom moom benn exemple la ci benn modèle la ci euh, te dinaa leen wax firnde yi lu jiitu usmaan songo ku nekk xam na ne réew mi ba nii laata xam usmaan Sonko ku nekk xam na ni dañu ko daan gis mu doon nit koo xamante nii tamit ki ëpp ay connaissance ki gën a jaxasoo ak nit ñi maanaam peuple Sénégal ak li nu diffusé wu diffusé wu ci wàllu xeet ci wàllu ay tarixa wàllu turxu ànd ak loolu lépp fu mu ci dem rek wàccuwaayam am na ku ci nekk amal nga ko cofeel goo xamante ni ëpp na bu dee ci wàllu tiijaan yi ñoo ko gën a bëgg bu dee ci wàllu salafis yi wala ibaadu yi laa bëgg a wax bu dee ñoo ñoom ci li ñuy li ñuy ànd ànd ak lépp lu nekk ñu dàq ko sëñ Abdou mi mu bokkut ci ñun dàq beneen bi ci desaat ba ci ñii ñu bokkalu diine di jàngu bi sëñ si Abdou ci am ay xaritam loola nag day wane jikkoom ju rafet ak baaxam te loolu it beneen exemple moo ci am xoolal lu ni màggalug daaru moo njëkk a rassemblé journaliste yi ak boroom xam-xam yi boole leen ci benn jataay ne leen yéen ñi ku ci nekk da ngay daxwa ku ci nekk da ngay woote ngir sam réew baax ñii dañuy woote ci lislaam ñii di woote ci wàllu kii man Pape Alé Niang mi daa mel ni foofu laa njëkk a gisee wala fa laa ko gën a xame ak ñeneen ñoom ñëpp mu boole leen ngir ñu toog débattre ab thème bu dee Oustaz sàll Sall Dame Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen euh, Mbuub kër euh, Mbuub mi ak ñeneen boo jëlalee loolu politiciens yi sax daanaka da wax ne resambur la doonoon pour këram te xam ngeen ne ñuy màggal borom daaru ñuy màggal ko xam bokk ci famille bu bokk xam ñuy màggal bokk ci tarixa ànd ak loolu lépp day tànn thème boo xamante ni ñun ñëpp ñoo koy mën a séddoo ñu toog waxtaane ko waaye lii lu ko gën a doon yaatu lu ko gën a doon dep euh, maanaam patriote lu ko gën a doon bëgg sa te dégg ngeen ko ba tey mu wax ne te li mu gën a bañ nag te gën koo xeex moom mooy si si mooy nu mu tuddee six bu teguwul ci yoon wala lu ma bëgg a wax sax mooy nit ku ñuy néewal doole loolu laa bëgg a wax nit koo xam dañ koy néewal doole. jàpp naa ne li ko gën a liyee ak Ousmane Sonko bokk na ci néewal doole ak ak xam yi ñuy jalgati ak leen koy tooñ xam ngeen ne ba muy toog di wax ne Ousmane songo de bi ma ko xamee xam naa ne fële ñu koy wax ci aji saar leer na ma ne defu ko lan ko fay ji tey Sénégal àdduna demul ba jox ko dëgg jox ko dëgg te ba muy dem di ko défendre ci ñetti cause ñaari cause yi la ko doon défendal ñetti cause yi mooy benn bi xam nga mu xam Ousmane songo beneen bi ci des mu doon wax digganteem ak yàlla beneen bi ci des mu doon rendre compte kilifaam muy sëñ Muntaxa yaakaar naa ba mu koy wax ñu bari sax xaj na mere woon nañ ko ci wala dara waaye tey ñoo dem ba wane ne Ousmane Sonko ay la yéwén ak gut ci xale bi euh, xale bi li mu waxoon ne arme la tegoon yooyu yëpp amul te yooyu yëpp sëñ bi défendre na te loolu lépp li mu ci doon défendre dafa xam Ousmane Sonko booba ba léegi mujj na sax tàbbi ci xeex bi tàbbin boo xamante ni daanaka da ngay wax ne kiiw ndax parce que nit ñu koy jaay doole nga man caa wax te yonent bi dafa waxoon ne bu ngeen gisee lu leen naqari na ngeen ko dindee seen loxo wala ngeen dindee ko seen làmmañ wala ngeen dindee ko seen xool ànd ak loolu lépp mi ngi jéem li ñuy teg Ousmane Sonko te mu xam ne ne jaarut ci yoon mu jéem di ko jéem a dindi ci làmmañam ndax foofu la yem mooy na wax mooy patriote yi fexe leen ba lii ngeen gëm muy procès bi fexe leen ba ànd leen ci Ousmane Sonko man Ousmane Sonko xam naa ko bu dee wàllu xaalis bi nga xam ne moom la nit ñi xër-xëri nangami million tego ne sama loxo ngir ñu jox ko Ousmane Sonko bi ma ko laalu ko te loola moom xam na ko bu baax a baax te la muy wax xam na ne Ousmane Sonko moom mënu koo yokk dara même bu nekkoon président mënu koo yokk dara tey du tax mu bàyyi postom bi jël beneen kon daf koy jàppale rek ngir jëmmi yàlla ak xam ne nit ku bëgg réew mi la waaye nit ku am diine nit la koo xamante ni bari na lu fasoo ca biir këram ge wala ca dëkkam bale ca këram gële lu fa fasoo ci xarit ci wëllëre ci jokku mbokk ci ñëpp boo demoon ba ci radu Aliou ñoom ak gars yi ñëpp xam nga nit bu fekkee day bëgg réew mi day bëggaale ñëppi réew mi ñëppi réew mi waaye boo ne dama bëgg ñi surtout rawatina nag ñi nga xam ne danoo nekk ci équilibre wala danoo nekk ci jub ñooñu moom danoo mat a taxawu moom te moom mi loolu lay def déclaration bi yi mu def rek ku ko def te déclaration bu ama am solo ci situation Ousmane Sonko bi mu taxaw ne yéen ñëpp képp koo xam ne sa xarit laa sa wóllëre laa sa sa kilifa laa ci wàllu diini la ko dale ci tiijaan yi sa xarit yi ma ci am ña nga xam ne ñoo bokk ci jàngu ba ña bokk ci ibaadu ña bokk ci ñëpp koo xam ne sama xarit nga ak di déglu sama ndigal ak jàpp naa am sañ naa laa wax dara nga dégg ko téel sa carte d'identité ba kër ngay dégg ndigal te loolu bi mu ko waxee mois de juin juillet ba léegi la waxoon loolu te ba jonne tey tey la ci li ci gën a yéeme mooy jamono yooyu ku nekk xam ne ni nit ñi doon nañ def poro propagande pour jël d'identité yi man ba léegi am na ci ku ma wax ne ma man sama d'identité photocopie sax ma koy def waa ji dama koy xool taxaw xool ko mu photocopie ma jëlaat ko waaye photo yónni ko xale sax du ko def nee na ndax kàddu yi Sëriñ Abdu yooyu nga xam ne moom laa déggoon mu wax ko sama dentité ba jonni tey mu ngi ma téye te moom laa ciy déglu ndigal loolu jàpp naa ne engagement bu leer a leer la <coughs> beneen bi ci des yaakaar naa ne tukkeem bii mu def bitim réew mënoon naa wër ñooñam ay taalibe waaye fépp fun fa dajem pësir am dana dem tàbbi ci biir dana dem tàbbi ci biir nekk fa teewe ndajama tàmbalin ba ndaje ma jeex mu soog a dem te pourtant de Euh, amul dara lu mu fay wuti wala loo xamante ni koo xam ne boo toogee sab dëkk say addiya di la fekk foofa kon jàpp naa ne wuri woo addiya di woon ku yàgg génn la te loolu nag may na ko nee na 86 ba léegi mi génn lool nag may na ko expérience boo xamante ni expérience yu réew yëpp dajale na ko boole ko expérience su Sénégal loola bokk na ci li ko gën a bañ sax ñuy xeex ndax gis na yeneen réew yi nga xam ne. duñu réewi jullit te mu dem fa gis na nit ñi niñ leen di delloo seen àq ak niñ leen di protéger ngir ku bëgg jël seen àq loola nag ku ko mën a xeex rawatina nga bokk fii ci e, Sénégal di jullit ñu lay wax ñu ne la borom daaru mooy sa maam nga xam ne ba problème amee dund manqué sa waajur moo jël dund wala sa maam moo jël dund ngir kii ku nekk gis na ak xilaafa ni mu mel xilaafa xilaafa maanaam njaboot ga nañ cay toppee nekk kii mais Cheikh du yaakaar naa ne waajuram nekk na fi ba jóge fi sax maanaam ñu bare taxut ñu xam ko doo dikk mukk fekk ko fa ndax loole lépp isalewu bàyyi ña nga xam ne ay ñay doxal mbir ma la ñu doxal ko te mënoon naa fis booba lu nekk mu am ko lu nekk mu mu yóotu ko waaye déedéet defu kon nag wax de yàlla damay wax ne moom patriote dëgg la te Ousmane 2014 ba léegi wax na ne 2014 ba léegi li muy daj kenn xamuñu 2014 ba léegi nag ba 2024 nag Ousmane songo moom jàpp naa dañ ko war a gunge dañ ko war a gunge ñaari kaat yi mujj yi moom war na benn kaat bi moom mu neex lool benn bi moom metti na bu njëkk bi 2004 waaye 2000 2014 waaye 2024 mu war na neex ci moom ak tëj kaso ni metti te nit ki na xam ne yàlla rek mooy ki nga xam ne dafa mën a jéggale yàlla moo mën a jéggale waaw xaafir xafóor xafaar loolu yàlla rek moo ko tudd xam nga mooy wax ne yàlla moo mën a jéggal tey par exemple nga demoon ci benn nit ne ko damaa bëggoon nga lebal ma deux cent mille wala damaa bëggoon nga lebal ma saaku ceeb commerçant nga dem saaku ceeb boobu mu lebal la ko nga ne ko dat sàngam dinaa la ko fay si dat ba ñëw waa ji amaat sincère dikk ne ko man di wax di yàlla awma xaalis dat ba ma la waxoon waa ji nga xam ne mooy commerçant bi bindoon fii ne waa ji yoreel na ma saaku ceeb daal di jël bic daal di daal di effacé ne ko bàyyi naa bor ba wala soit mu jëkk-jëkk ko demal bàyyi naa bor ba nga loolu lu neex la demal bor ba jëlal may naa la ko waaye am na bu ko dàq bi ko dàqaat mooy mu daal di jël bic effacé ko ne ko bàyyi naa bor ba boobu am na bu ko dàqaat mooy jël carnet ba nga gome ko ba noppi xotti ko loolu jàpp naa moo gën a dàqati ndax bële man nga ko ne bàyyi naa ko bor ba turam nekk fa ëllëg mën nañ ko koo topp sax am na beneen bu ko dàqaat nag bu ko dàqaat mooy gome kii bi xotti ko effacé ko lakk ko ba noppi muy dem nga ne ko gardien bi wala ki nekk ci magasin nga ne ko jëlal beneen saako ceeb nga joxal ma xanaa loolu moo gën a neex yàlla bu lay jéggal bu demee ba nar laa neexal say mbir ñii la koy def moo tax soo Sonko ngay amee bu dee sëñ Abibu Si lu gàtt lañ ciy wax maanaam engagement bi nga xam ne da ko jël te àdduna bépp tegandoo ci seen bët ay waxam amul benn wax boo xamante ni wax la boo xamante ni lu mu waroon a wax maanaam nanguwuma loolu di wax naa ah loolu de dinaa ko seetaat day wax ne nanguwuma loolu directement ñëpp xam ne nanguwuma loolu Ousmane nga sama xarit la Ousmane ku mën a assumer ne xaritam nga rek fi ñu toll maanaam doy na sëkk sëkk sëkk lii responsabilité euh, ci ci ñu noonu la ñu bañ la ñu kii la gis ngeen lool sax li mu ko jural ci kàddu ñu ñàkk fayda ñoo xamante ni tekkiwunu lu bari bari ci réew mi àttana yëkkati kàddu di ko teg te loola la ko waral mooy ñu nekk ci seen ginnaaw di leen liggéeyloo ci loolu waaye ànd ak loolu lépp lay wàññi dara daraja moom du loolu moom yàlla sedd na ko mu doon juddoo fu set ba noppi di setal ba noppi toog fu set loolu nag kooku nag ku bëgg a dikk tilimal ko de yàlla bu nangu te du gis lu tilimi tamit ndax ku nekk xam na ne Ousmane Sonko moom ku koy bëgg danga nga ko bëgg ci néewal doole gi ñu koy néewal doole ak dëggu gi mu dëgg nit nag bu fekkee dafa dëggu ba noppi ñu koy néewal doole yow mi dëggu nag faaw nga def ca dara dëgg nag kenn du jël sa tànk di ko ci dëgg dëgg da koy bàyyi mu fitti ndax dëgg noonu la yelloo waaye jël dëgg ba noppi jëlaat sa tànk dëgg ko ci loolu jàpp naa ne rawatina ku nuy tuddee kilifa diine eh, du ko def buñ doon jeexal daal sëñ Cheikh ab mi moom dëgg si yàlla patriote dëgg dëgg dëgg te engagement yi mu jël ba politique amee ba léegi benn sëriñ bu féeteerloo nii jël ànd engagement waxuma féeteerlu sax boo xamante ni dafa jël ay responsabilité ànd ak ku ñuy néewal doole ba noppi en même temps mu néew doole ndax néew néewal ko doole mënta paase nu jàpp ci moom nangami junniy nit. Euh, moom ci boppam may responsable ñu tëj ko ci kaso élection des trois mois wala six mois nga ne yéen ñëpp téye leen seen i carte d'identité ba heure sàngam ba bis sàngam te lam ci gën a settee nag mooy képp koo xamante ni sama kilifa nga wala déggaloom wala séqunu ko waxuma la yow ndax général si loolu nag ak maandute la ak koo xamante ni moo tax daal ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla defal ko <laughs> fan gudd ak wér di ñaanal Serigne Habibou Sy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 Tanim TV yéen rekk la fi nekkar ngir ay xibaar yu weer te wóor